doon na ko amale doon jënoo ak tas ko do xabaar yi waaye wane na fa ak ñàkk teggin wane na fa ak ñàkk worma jëmale ko ci Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko journal bi nee na Idrissa Seck démb dafa saaga askanu Sénégal ba xolom sedd yéen kay gi ne nee na Idrissa Seck yekk na musiba ak mbelengaan Karim Wade ak Abdoulaye Wade ak ñi nga xam ne ñoo nekk PDS loolee tamit bokk na ci li tax ñi nga xam ne ñooy waa PDS ñoom tim nee nañu maanaam dinañu tontu Idrissa Seck nee na bis ñëw maanaam dafa dàq Karim Wade ci bureau ma nee na Karim Wade maanaam comme ni ñëpp xaare te bi mu demee ba nekkatul ci gouvernement bi la Karim Wade commencé yor ay poste te lépp waxoon na ko Idrissa Seck ci biir journal wax ne Abdoulaye Wade mbooleem li nga xam ne ay promesse la yoo xam ne doon na ko wax amul lenn loo xam ne lum si jëfe la yéen kaay gi di direct news xëy duñu xibaar naa ñu Idrissa Seck démb saaga na Abdoulaye Wade ba xolam sedd waaye Abdoulaye Wade mi nga xam ne lépp defal na ko Idrissa Seck Abdoulaye Wade moomee la Idrissa Seck doon ŋàññi ni ki démba moom Idrissa Seck nee 2024 daan wax ne Marième Faye Sall bu nekkoon candidat maanaam du ko lànkal téeméeri mandat yéen i kay giite leen foo xëy di ñu xibaar nan ñu Idrissa Seck nee na candidat la ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Idrissa Seck nee na Macky amul sañ-saña bokk ci élection présidentielle 2024 yi te amul benn porondoll boo xam ne Macky Sall mën na saa ndax Idrissa Seck nee na dafa laaj professeur Serigne Diop wax ne Ousmane Sonko bu nangoo bàyyi justice bi maanaam mu doxal def liggéeyam ci lu jëm ci diggante moom ak Mame Mbaye Niang dina ko daal di jàppale Idrissa Seck na bëgg mooy fexe ba Ousmane Sonko nekk candidat ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal la waaye nag moom njiitul parti Rewmi daan na dëggal ne seete na Ousmane Sonko maanaam nee ak fajar la fa dem moto la fa yóbbu te nee na loolee Macky Sall àndoon na ci yéenekaay si ay sàcc kàddu Idrissa Seck la yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na élection présidentielle 2024 Idrissa Seck génn na ci Karim Wade génn ci Khalifa Sall génn ci Macky Sall ba pare nekk candidat yéen a kaay gi di Direct News xëy dañu xibaar naan ñu élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la coalition Benno Bokk mooy nekk seen candidat diggante Amadou ak ki nga xam ne mooy Idrissa Seck na en tout cas mën nañoo njort ne Macky Sall mën naa jekk-jekk daal di ndànk-ndànk te lu mën nekk la journal bi nee na nag njort nañu ne Idrissa Seck maanaam dafa jotoon ay promesse maanaam dañu ko diggoon na ko boo ñëwee jàppale Macky Sall ci biir benn bokk yaakaar yow la benn bokk yaakaar di ngeem ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal la waaye nag journal bi nee na Macky Sall bu ko defee dana way mbay ndax ñi nga xam ne ñooy waa coalition benn bokk yaakaar bu boobaa danañu lànk ba tëdd sa naaj wa journal bi di direct news xëy duñu xibaar naan ñu bu dee ki nga xam ne mooy Amadou Ba maanaam Amadou Ba ku courtois la ba pare ko effacé la ci lu jëm ci wàllum politique nga xam ne mooy Amadou Ba mën naa nekk loolu candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ndax moom Amadou Ba amul benn contentieux ak kenn ku nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar maanaam un homme de consensuel la Amadou Ba journal bi di Dik News moo xëy di ko xibaar yéen kay gi di xëy di ñu xibaar naan ñu Bassirou Diomaye Faye teg nañu ko loxo niki démb vers 22 heures ñi nga xam ne ñooy waa DIC division des toppee libération nee na maanaam mooy tooñ am magistrat waxal ko lu dul dëgg ak lu jëm ci wàllum division de fausse nouvelle yéene kaay gi di libération nee na Bassirou Diomaye Faye li nga xam ne moom la bind ci page Facebook am loolee jamono ji la ñu koy toppee ndax nee na yenn ci ay magistrat maanaam seen mission mooy jàpp yenn ci opposant politique daal leen di rendi daal leen di daggatee jël ndawal gi jox ko Macky mooy xool soos bu ko neex mu daal di ko ciy togg loolee bokk na ci li tax Bassirou Diomaye Faye ñu daal di nga xam ne ñoo bokk ci yeewi xabaar yi woote nañu am mobilisation bu rëy fukki fan juróom-ñaar ci tribunal ci àtte Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñooy député pur yi yéene kaay gi de Libération Ousmane Sonko nee na ñoom danañu a ak magistrat yi nga xam ne jamono ji dañuy politique te seen bopp rek ñor leen waaye nag lu jëm ci wàllum inscription bi nga xam ne primo votant yi jamono ji ñoo ngi koy def maanaam gars yi engagé woo loole la dynamique boobee la gars yi bëgg a gi nga xam ne teg nañu ko loxo ndax ñoom nee nañu maanaam am na loo xam ne dootuñu kon nangoote ndax bëri na seeni membre yoo xam ne ci seen bërëbu liggéeyukaay fa lañ leen di fekk di leen di jàpp moo tax ñi nga xam ne ñooy liggéeyee impôt domaine woote nañu mobilisation bu rëy yéen i kaay gii di enquête xëy di ñu xibaar na ñu collectif international liggéeykat yi nekk ci administration bu Sénégal ñoom tim jamono ji mer nañu ba mara détail te nag nee nañu ba muy tuule danañu indi ay gàllankoor ci bi ndax ñoom li ñu sàkku mooy seeni indemnité nee nañu état bu Sénégal bu ko lijjantiwul maanaam danañu amala marche bu mag ci Sénégal